mbokk xarit yi yéen ay ñaal cant ak gërëm ak yéen ci seen télévision lu Mourabitoun ñu fas yéene ñëw yéen ci seen i xibaar ah, di ko tàmbaleek boppi xibaar yi. yenn unité ci takk der yi xeex wàllu ba terrorisme ci réew mi ah, di entouré ay kër ci région Nouakchott du nord ngir jàpp terroriste bi ñu yaakaar ne foofu la làqu ah, ginnaaw bi mu rëccee ci kaso bi tollu na ci semaine. njeexalituk session parlementaire normale bu njëkk ci atum 2016 njiitum assemblée nationale di rafet lu euh, liberté euh, wante responsabilité bi nga xamante ne nag session bi làmbool na ko. kuréelug taskati xibaar yi jigéen yi nekk ci euh, Mauritanie di amal ab lël ci Nouakchott ci lu aju ci taxawaayug tagg yonente bi wante li mu mën a rek ci diine ji. mbokk yi dale nag jàmm ci seen i xibaar yenn unité euh, ci takk der yi xeex wàllub terrorisme ci réew mi euh, di entouré ay kër ci euh, région Nouakchott du Nord ngir jàpp ab salafiste bi ñu yaakaar ni foofu la làqu ginnaaw bi mu rëccee ci prison bi tollu na ci semaine prisonnier boobu nag di salafiste boobu nag di Cheikh Wulu Salik ñu gis ne nag kon moom la wër Euh, ci euh, réew mi euh, tollu na ci semaine ci loolu nag ñu gis ni ki nga xamante nag moo di salafiste boobu di Cheikh Ould Salek moom nag dañ ko atte woon ngir tëj ko giirug dundam ci atum 2011 ci loolu nag ñu gis ne kon mi ngi rëcc ci alxames ji ñu weesu ci weer wi ñu génn di le 30 décembre ci weer wi ñu génn njeexalituk session parlementaire normal bu njëkk ci atum 2016 euh, mu mel ni nag session parlementaire bi am na diirug euh, ñaari weer euh, ci loolu njiitum assemblée national di Mohamed Ould Boylil di xamle ne nag session bi kon doon na ab occasion bi nga xamante ni ñi di nguur gi ak kujj gi joxante nañ ci loxo bu baax a baax mu doon ap session bi nga xamante ni nag làmbool na ak lu ñuy wax Euh, liberté ak euh, responsabilité njiitum euh, jëwriñ ji di xamle ci kanamu assemblée national ne nag euh, daara yi nga xamante ni nag jotoon nañ leen tëj ci réew mi kon euh, tëjuñu leen rek ngir nasaxal li ñuy wax njàngum alxuraan ci réew mi wante li ñu ci jublu moo di rek gën a dëgëral taxawaayu ko njàngum alxuraan ci réew mi loolu nag tax ñoom ñu fas yéene rek bëgg ngir képp ku nga xamante nag da ngaa fas yéene jàngale ubbi daara ci réew mi nga am am euh, lu ñuy wax ab autorisation euh, ci loolu nag muy ñaan ngir ñu bañ rek euh, dugal li nga xamante ne nag moo di alxuraan ak jafe-jafe yi nga xamante ne ñoom ñu ngi koy jànkonte ak kujj gi ci wàllu wàllub politique maanaam ñu bañ ko rek dugal ci lu ñuy wax politique ci loolu ul hadamin di xam xamle ba tey ci kanamuk ñi di ndawik assemblée nationale ne nag lii di autorisation boobule kon mu mel ni rek rek doonul li nga xamante ne nag lu jafele wante rek euh, dafa toll rek ci euh, nga déposer say dossier euh, ci ñi nga xamante ne nag kon ñoom lañ ko dénk ci administration bi bu ko defee dinañ la mën a rek jox li nga xamante ne nag moo di ab ndigal ngir nga mën a rek taxawal sa daara fii ci biir réew mi ngir jàngalate li nga xamante ne nag moo di wàllub alxuraan ci biir réew mi ba tey ci kaddu ki nga xamante nag moo di njiitum jëwriñ ji di Ould Hadamine ba tey ci kanamu ak assemblée nationale di xamle ne nag ñoom nguur gi mënuñoo doon noonu a alxuraan wante liñ ci jublu ñoom saa moo di rek euh, di euh, défendre li nga xamante nag moo di diine ji di ko wattu saa su ba tax na loolu nag tax leen ñu fas yéene rek amal ab yoon nga xamante nag dañoo bëgg daara yëpp euh, dëppoo ci mu di rek képp ku fas yéene ubbi ab daara. ba kon nga mën a rek jëli autorisation ci nguur gi euh, ci loolu itam ñu bañ a amal ñu bañ a rek euh, boole li nga xamante ne nag moo di njàngum alxuraan gi ak lii di euh, politique bi wala xiiroog ngaay yi nga xamante ne nag moo dox ci diggante nguur gi ak kujj gi ak li nga xamante ne nag moo di njàngum alxuraan Euh, ci beneen euh, wall ci wàllub njàngom alxuraan bi ba tey ci kàddu yi ndaw ak assemblée nationale bi itam bokk ci euh, parti bi di parti tawasul di wuy ci turug Abdou Salam wul Abdullah kon Salam wul Abdullah di li mu xamle moo di daal ne ñii di Mauritaniens yi du ñu seetaan mukk kuy laal lii di seen kaaraange te li nga xamante nag moo di tëj nguur gi tëj yenn daara yi ci biir réew mi kon bokk na rek ci nasax xal kaaraangeeg réew mi euh, ba tax na moom Ould Abdallah di xamle ginaaw bi mu jëlee kàddu ci kanamu assemblée nationale ne nag moom euh, pare na ngir rayante ci kanamu képp ku nga xamante ne nag da ngaa fas yéene nasaxal alxuraan euh, ci réew mi wante fas yéene rek di tette alxuraan bañ ko bàyyi mu amal li nga xamante nag moo di liggéeyam ci askan wi moom nag pare na rek ngir jëflanteek yow ñu dellu ci atum euh, deux 2015 ak xew-xew yi nga xamante ne nag amoon na ci wàllub li euh, di euh, ñaawteef fi nga xamante ne nag jotoon na am ci réew mi ñu gis ne atum quinze amoon na ay tooxiduna yu rëy rëy nga xamante ne nag Samba Boy amaloon nañ ko ci réew mi bokk na ci ay bakkan yu ñu faat wante bokk na ci ay alal yu ñu luubal ci réew mi ci loolu nag itam am na ay groupe Samba Boy yu nga xamante ne nag ñi ngi doon amal itam ay trafic ci réew mi. loolu nag indi ay werante yu bëre ci diggante ñii di askan wi ak nguur gi askan wi li ñu xamle moo di nag ñàkk taxawaayu ko nguur gi wante ñàkk kaaraange bi nga xamante ne nag am na ci réew mi moo tax saa ne ñaawteef yooyu di am ci biir réewu Mauritanie wante nguur gi itam di tontuk askan wi ci beneen wàll ne nag jël nañu seen matuwaay yu war eh, ci eh, kanamu ñi nga xamante ne nag ñoo di sambabo yooyu di amal ay jëftin yu ñaaw ci réew mi ba tax na nag atum quinze ñu gis ne rek am na ay jafe-jafe ñaawteef yu bëri nga xamante ne nag askan wi ñu ngi ko doon jànkonteel ci kanamuk Samba Boy nga xamante ne nag ñooy dund fii ci biir réew Mauritanie ñu dem ak yéen ba fële nga xamante ne nag euh, moo di euh, réewum euh, Israël c'est ak réewum Palestine ci jafe-jafe nga xamante ne nag moom la ñuy jànkonteel ci loolu ñi nga xamante ne nag ñoo di borom xam-xam yi saytu jafe-jafe yi nga xamante ne nag kon moo dox ci seen diggante ñaari réew yu di intifada palestinien bi nga xamante ne nag moo moo nekk moo am ci seen diggante ak réewum Israël kon ñu gis ne bu ñu méngalee lii di intifada di lii di. ñaareelu intifada bi ñu romb ak ñetteelu intifada bi ñu ne ñu gis ne nag am na kon euh, lu ñuy wax rek différence bu rëy bu nekk ci seen diggante ñu gis ne kon ñaareelu intifada bi ñu weesu moo gënoon a rek metti euh, ci wàllub doole wante ci wàllub ngànnaay lépp ñu gis ne euh, bakkan ci faatu itam ñoo ëpp ba tax na fi ñu toll ni ñoom daal li ñu xamle daal moo di kon ñetteelu intifada fi am na ay jafe-jafe kon metti metti na wante euh, lii di ñaareelu intifada ba ñu romboon kon moo gënoon a euh, euh, doy waar ñu dem ak yéen ci wàllub sport ak kaddu njiitum jëwriñ ji moom Yahya Ul Hadamin di xamle ne nag nguur gi ñoom pare nañu rek ngir tabax ay stade ci réew mi ci biir Nouakchott wante euh, ci dëkk-dëkkaan yi nekk ci réew mi loolu nag wax nañ Ul Hadamin mi ngi ko xamle binaaw ginnaaw bi nga xamante ne nag équipe nationale mënut dalal ay naataangoom euh, ci biir réew mi ngir manqué ngir rafle loolu di. ci ba stade ci réew mi euh, ba tax na fi ñu toll nii nag euh, wax nañ ne euh, ba tey stade olympique di stade bi nga xamante nag moo gën a mag ci réew mi kon fi ñu toll nii dafa tollu rek ci ñu koy liggéeyaat ba tax na mënut a dalal benn match bu nga xamante nag équipe nationale dina ko laale ak beneen équipe ci réew mi ba tax na loolu nag moo tax nguur gi fas yéene rek amal ay stade yu bees ci Nouakchott wante ci dëkk dëkkaanik réew mi ñu jeexal ak yenn ak kuréelu taskatu xibaar yi jigéen yi nekk ci biir réewum Mauritanie euh, di amal ab lël ci Nouakchott ci lu aju ci tagg yonante bi euh, ci taxawaayu tàgg yonante bi wante li mu mën a wesaare ci diine ji Euh, wante li nga xamante ne nag kon moo di liggéeyu ka taskatu xibaar yooyu le euh, ci sàmm li nga xamante ne nag moo di euh, turuk sang bi di yonente bi sallallahu alayhi ci loolu nag ñu amaloon ko ci teewaayu ay taskatu xibaar yu jigéen ci réew mi ci ñu bokk ci kuréel gi wante ay taskatu xibaar itam nga xamante ne nag bokkuñu ci kuréel gi ci loolu itam ci ay teewaayu ay kuréel ak i ay syndicat waaye taskatu xibaar ci réew mi euh, ci loolu itam ak euh, ñu nga xamante nag dañuy yëngu ci wàllu li euh, di askan ci réew mi kon mu mu doonoon xew-xew ba nga xamante nag dañ ci doon fësal li nga xamante nag moo di taxawaayug tagg yonente bi wante li mu mën a rek jëriñ askan wi ci wàllub diine ji mbokk yi fii lañ yem ak yéen ci seeni xibaar duñu def lu dul dellu seeg yéen ci boppi xibaar yi yenn unité ci takk der yi xeex wàllu terrorisme ci réew mi di entouré ay kër ci région Nouakchott du Nord ngir jàpp ab salafis bi ñu yaakaar ne foofu la làqatu ginnaaw bi mu euh, rëccee ci euh, kaso bi tollu na ci semaine. njeexalituk session parlementaire normale bu njëkk ci atum 2016 euh, njiitum assemblée nationale di rafetlu li nga xamante nag moo di Euh, liberté wante euh, wante responsabilité bi nga xamante nag session bi lambool na ko kuréelug taskatu xibaar yu jigéen yi nekk ci biir réew Mauritanie di amal ab lël ci Nouakchott ci lu aju euh, ci taxawaayu ko tagg yonente bi wante lu mu mën a wesaare ci diine ji mbokkee xarit yi fii la ñu am ak ci seeni i xibaar duñu def lu dul di leen jox dig dag de dig dig daj Euh, du ñu def lu dul di leen jox euh, dig daje ba ëllëg incha allah di rafetlu ànd bi ak qualité bi ak télévision Al Mourabitoun di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.